góor demal nga xàll jigéen a ngi ñëw dafay daagu si lan ngeen bëggati góor xàllal jigéen a ngi ñëw day daagu si góor demal nga sanc kër jigéen dafa bëgg a dëkk si góor demal nga dëkkoo jigéen dafa la bugg a jox njaboot boo talee ñu wettil la boo talee de ñu dimbale la góor yow roq nga jigéen yow loon saar bi ñu tuddee suratul ahzab yàlla defa ne maa jaala allahu li rajulin min ni fii jawfihi benn góor mayuma la ñaari xol te jigéen am na ñaari xol jigéen dana dem bi am ñetti xol jigéen dana dem ba am ñeenti xol xam na am na ku sant ndaw toog ni sëñ bi tey ceebu Dakar yi moo neex <laughs> waaw <laughs> góor benn xol kese la am jigéen dana dem bi am ñaari xol jigéen dana am ñett xol jigéen dana am ñeent xol ci biir dundam dana am xolam bu rëcc mu amal beneen xol te xol yi góor bu rëccee rek dee na góor mënta àttan ñaari xol yuuram àttanu ko moo tax jigéen am ween ñuy naan jigéen ni weenam sëggee noonu la xelam sëggee déedéet bu jigéen amuloon ween li li xolam yu bëree di laaj yuur bi du ko mën a joxe day ne pof toj mel mel ni benn benn mbàtt bu oto jaar ci kaw yóori jigéen fi mu toll ak la mu ëmb ak la muy daj te mun koo dékku boo ko tegee góor mu seet ndax xol bu nekk daf koy laaj telle énergie xol bu nekk daf koy laaj tel tempérament xol bu nekk daf koy laaj tel ci climat yëpp benn yuur bu koo joxe kooku bu la yàlla dogalul nooy mel yàlla na ci alxuraan wa maa wa maa ja'ala yàlla deful lii rajulin ñeel benn waay min qalbayni ñaari xol min jaw fii yàlla waay la tudd tuddul kumba de waaw góor waaw kumba yàlla defal na defal ma ko benn benn waay kon yàlla defal na ko jigéen di alquran la man waxuma ko scientifique nañ jaax la anamu mooy jigéen bu ëmbee xolam ak xoli doom muy ñaar mu ëmb ay seex xolam ak xoli ñaari seex yi mu ëmb ñett doom xolam ak xoli ñett doomi muy ñeent xol góor bu ëmboon tey rek dootu seeti bi abadan dootu seeti bi abadan dootu seeti bi abadan yal yàlla fay leen seen lii na ngeen ko xam lii na ko xam dawa ñu ngi am ñeent loxo loxo boppam loxo njaboot loxo ki mu ëmb ñeent tànk ñaari tànkam ñaari tànk doomam ñeent bët ñaari bëtam ak ñaari bëti doomam ñeent paxi bakkan yu bosam yu bosi doomam ñeent nopp ñaar yu bosam ñaari doomam lu nekk luy benn muy ñaar booba luy ñaar muy ñeent ca booba lii yëpp jigéen di ko aliment bu yàlla di dafa kawar bi doom bi nar a bari kawar yaay bi di am xer foog mu jëli luy dundal kawar bi te mooy dóomu taal foog mu jël dóom tuuti teg ko ci làmmiñ bu loolu dafay xel ñeen ñi daf koy bëgg a sonnal seet moo mag yàlla rek ñoo yëg ne kii mu ëmb day bëri kawar bu toogee xelam di teey muy tufli ndeke doom bi euh, calcaire wala li calcium bi dem ci ci yax ndeke doom bi dafa nar a doon ku dijj ci yax mu tàmbali doom bi dafa war a doon koo xam ne dafay saf nit ñi yaay bi fu mu nekk mi ngi njàmbaan mu ngi njàmbaare parce que doom bi moo ko laaj bu dul bu dul yaay bi ak yàlla kenn xamu ko waaw yàlla mi ngi defar tey res bi res dafa doon lu chocolat doom bi aajowoo lu chocolat yaay bi dem jënd betterave lekk doom bi fi mu nekk kaani bi yaay bi lekk daf ko sonnal soxla na lu soof tuuti pour mu modérer yaay bi dem lekk nawe mu jaftal ko mu dem lekk nawet ñu ngi ñu ngi defar wextanam te wextan mooy mariner ni ngay jëlee vinaigre mu mariner salaat boo lekkee wextan dafay toq fukki yoon ak juróom ci loolu ngir mariner ko yàlla ngi defar wextan bi yàlla lekkaloo ko jaxato dafa wex doom bi ne ko yaay dama wuti jaxato doom bi góor la yaay bi ëmb na xam ne nag góor la nu mu koy xamee góor bi bu tàngee dafa war a tàng bu tàngul dafa war a tàng doom boobu càmmoñ lay tëdd ngir xol tàng càmmoñ la nekk ngir moom la jël ci xol bi yaay buy dem pañ buy dem marché bu jëlee pañ rek loxo ndeyjoor la koy jëlee parce que poids baa ngi càmmoñam pour mun a équilibre mu jëlee pois bi ndeyjooram déjà yaay bi xam ne na góor la ëmb te baay bi sax xamul bu ëmbee jigéen jigéen bu tàngee dafa war a tàng daf bu seddee dafa war a sedd jigéen bu seddee dafa war a sedd bu sedd dafa war a sedd te res moo sedd ci nit kon doom bu jigéen dafay ñëw tëdd si ci wàllu ndey ndeyjoor yaayam ngir jël seddaay boobu la bu juddoo mën a doon ku mokk pooc doon jongoma doon njegemaar waaw kon yaay bi buy jël poids bu rootijee buy jël baag bi càmmoñ la koy jëlee parce que poids doom bi mu ngi ci ndeyjoor bu ko jëlee ndeyjoor day pant du mën a dox mu jële kon xam ne na jigéen la ëmb nan lay xamee ne doom bi jigéen la waaye dafay góore bu tëddee fii ba ci kanam mu tëb ñëw càmmoñ nga gis yaay ne woy kon doom bu jigéen la doon waaye dafay góore bu ñëwee àddina mi ngi ci bal yi rek mi ngi ci tennis bi rek mi ngi takk ay centre rek bu dee góor bu nar a jigéen la daal di lewet bañ ko naan kii dafa yàmbar bu tëddee tuuti wàllu càmmoñ jël tuuti ci xol dafay daw dem njeyjoor res bi daal di ko laal tuuti kooku bu juddoo dafay doon xale bu góor la waaye ku laccax lay doon kon lii lépp yàlla mi ngi koy def kenn yëgu ko bu dul jaay bàyyi mi ngi tëdd ci kaw lal mi ngi xaran rek kon seetal jigéen ñi muy yëgee lii seetal jigéen ñi muy moo tax euh, góor jigéen ki ko judduwaale du mbonam yaay la ak bàyyi ci biir néeg am na nooy séyee ak nooy tëddee boo juree doom bu dee jigéen la dafay góore bu dee góor la dafay jigéen moo tax li tubaab di wane ci télé bu leen ko def bàyyi leen ni maam yi doon wéete ci seen kaw la mooy njiglaay ñi judd dem ba màgg ngir alal ñu doon ay góor jigéen ñooy ñi bon waaye ñe la mu neex na leen faj neex na leen faj ba ñu génn ci loolu yàlla na ko fi yàlla jëlee yaa rabbi yoon yu métti yooyu yoon ci yàlla seetal umatu muhammad euh, sallallahu alayhi kon Euh, mbir maa ngi nii mooy jigéen lii la ko yàlla defal te ma defal ko góor jigéen fii la ko yàlla teg euh, tegu fa góor maa jaala allahu li rajulin min qalbayni fii jawfihi kon wa maa xalaqa zakar unsa li yàlla doon waat yëpp mooy maqaamay jigéen martabay jigéen jamono dikk tooñ ko ngir ga lewetam ñu koy exploité di ko jaay naka ni ñuy jaayee ay xar boo demee ci civilisation yi jiitu ci civilisation yi jiitu ci romain yi ci euh, grec yi moo ñu nekkoon fële Grèce seen capital di Athènes wala bu dee romain yi la seen capital moo nekkoon Constanta ñu changé ko euh, daal di ko def euh, Islamabad ci ginnaaw ñu ne Constanta ci ginnaaw ñu ne ñu tuddee ko kii Istanbul Islamabad beneen am na mu ngi ci Pakistan bokkut bi ay tur dañuy jégante parfois gisoo Malaisie Malawi Maldives du ñu benn Malaisie moo nekk Asie seen capitale di Kuala Lumpur Malawi mi ngi weti Afrique du Sud Maldives mu ngi ci woon Inde ci boori Sri Lanka ngeen déggee ko noonu hmm? comprendre nañ ko wax bi ñu ngi ñu koy jëli ndànk ndànk xeet yooyu dañ doon jaay jigéen di ko jënd ni jur bu jëkkëram dee ñu tëj ko ci kël gi xale buy jàng jigéen yàlla tere ci moom nga koy jàngee maa ngi jéggalu ci wax bi fi ma nekk moo tax may xaañ ci digg bi am na dëkk bu ma demoon ñu ko tudd nippaal Nipal mu ngi ci kaw Himalaya mooy montagne bi gën a njool ci àddina bi huit mille huit cent quatre-vingts mètres bu jëlee glace bu jëlul glace huit mille huit cent quarante-huit lay doon ci yëkkati boo ci tegeetu neuf kilomètres lay doon benn réew mi ngi ca ñu ñu ko tuddee Nipal seen capitale mooy Katmandu réew moomu jigéen bu jëkkëram faatu woon dañuy gas lu mel ni foos jigéen yëpp toog tàllal seen tànk ñu teg néew ba seen kaw suur leen ñu ngi dund ah yaa lii jàmm la dëkk ñu ngi ko Nipal seen capital mooy Katmandou te lii ñu ngi ko tàmbalee bàyyi a 1920 1920 amagul téeméeri at ah 2020 lay am benn siècle kon yàgguñ ko bay est-ce que l'islam nangu na loolu arab yi ñoo doon suul seen doom yu jigéen ñu dañuy daw gàcce ak li mu leen di teg ci ay dépenses yàlla wàcce aaya ci sourate Iza Samsu wa isal mawuda suilat bi ay zanbin qutilat xale yi ngeen di rey bu ngeen taxawee yowmal qiyaamati nga bëgg a jéggi siraat mu poñe la na yàlla sama moom ma reyoon dana la yey de looy wax keroog jigéen dafa lislaam dafa ñëw décoloniser jigéen génne ko ci njaam yóbbu ko ci ngor jémmee ko ci jële ko ci ndóol yóbbu ko ci regg jëlee ko ci tumaranke yóbbu ko ci wéttaliku kon jigéen amul xaar ma yàlla ci lislaam lislaam da ko yëkkati daal ko kam-kam la yóbbu ko ci kaw alquran jël na saar lëmm tuddee ko jigéen mooy sóoratu Mariam tawraata ama ko évangile ko biibul ama ko zabura ama ko suufi ibrahima ama ko lislaam moo jël saar tuddee ko yaay Mariama sóoratu Mariama lan ngeen bëggati yaay Mariama am na yonent yoo xam ne juróom yoon la ñu tudd ci alquran ñii fukki yoon waaye yaayu Mariama alquran mi ngi ko tudd fanweeri yoon ak ñeenti yoon 34 fois yaayu Mariama di yaay yonte yàlla Isa alayhi salaam lan lañu ñu bëggati ñi gën a am tur ci àddina bi te seen njaboot des ba léegi mooy ñetti yonant yi yonte yàlla Moussa ba léegi diinaam am na ñu koy topp mooy judaïsme am na chrétiens yi ñoo topp Isa ak musulman yi muy jullit waaye ñett ñi nga xam ne ñoo gën a doon ay ponkal ay kàndee ci àddina bi góor musu leen laal ci yar leen yëpp jigéen la yonte bañ ko ëmbee ñetti weer la baayam faatu ñaari weer jëm ci ñetti weer kon ku gisul baayam nu ko baayam di yare mu ànd ak yaayam juróomi at jëm ci juróom-benn at yaayam faatu ñu jox ko ummu ayman ummu ayman moo ko yore ba mu am ñaar fukki at ak juróom mu jël xadeetu toxu kër xadijatu ba am ñeent fukki at yàlla yónni ko mu am juróom fukki at ak ñaar Xadiijatu faatu mu gàddaay dem Madina ana fan la góor dugalee loxoom ci Seydina Muhammad amul yoon te yàlla Isaa far moom amul bàyyi sax tey doomu yoon ah Mariama ak Isaa ba Isaa làqu ñu teg ay at Mariama soog a dem te seetal Isaa tey li ko topp ci ay nit passé na un milliard Seydina Muhammad ñi ko topp dem na ba deux milliards tey Moussa naka noonu yaayam kese rek kon ku bëgg a delloo jigéen gannaaw ne ni weenam sëgge noonu la xelam sëgge dafa mel ni bu ngeen jàngee science naturelle garab yi nekk fi gën a wow ci désert bi dañuy am dëkk pour ñu am mën a résister garab bu amul dëkk du mën a résister tàngoor moo tax garab yi gën a métti dëkk yëpp fa ñu nekk mooy ci savane yi moo ci désert bi gisoo tàndoor ma ni cat yi dafay jàng gisoo werek gisoo déggu suuruur garab yi am dëgg yépp pour ñu mën a résister la jigéen bu amul woon ween muy déchargé wu température bi ko yuuram di jox du ko jig dafay judd rek dee benn yoon yàlla def ko ay ay ween ween yooyu bën bën yi nekk ci ween bi ci lay sànnee tooke yi ak dangar yi nga xam ne yuur bi mu ngi koy yebal ci biir yaram weer bu nekk mu mun a jigéen kese bu ko yàlla bàyyoon mun na jur juróom-ñetti téeméeri doom ovule yi nekk ci ndiggam waaye yàlla di ko def règle par mu ëmb rek juróomi doom taxaw wala ñaari doom taxaw wala fukki doom taxaw te loolu néew na ovule yi nekk ci ndigg doomi aadama bu ko yàlla def loon ween rek bàyyi ko ni góor jigéen du doon amati aadama rek moo doon am xawaa sax doon fala mbir mi di yem benn kon bu ñu naan ween jigéen ni mu sëggee noonu la xelam sëggee déedéet góor doole kàttan xalaat jigéen xalaat pexe kon fi góor yam fa la jigéen tàmbal kàttan doole xel jigéen xel euh, pexe yii nag bu àttane bu àndee rek lépp daal dina ñooy aw yoon dossier yi gën a métti ci àddina bi jigéen moo ko géré woon Seydina Muhammad sallallahu alayhi bañ ko génnee Màkka fi maamam yépp tëdd mu daw dem Madina benn ca juróom-benn at ba mu gént ne dafa gis dugg na Makka saxaaba yi ne ko ah, nañu dem dëgg la li nga wax noonu la mu ne waxuma leen ne ren la de dama ne gént na ñu ne ko foog ñu dem yow loo gént na noonu la moo tax kilifa bu ñu ko di forcer bu bañee nañ ko di bàyyi ndax xamaguñ ban cause la ban contexte moo tax mu def li mu ànd ak junni nit ak ñeenti téeméer ñii na junni ak juróom benn téeméer ba ñëw bi Hudaybiya lu dem ci ay vingt kilomètres balaa ngay dugg Makka waa Makka ne lii duñ ci doo fi dugg mukk ci gàttal coow dem kaw coow dem suuf ñu ne dañuy signé benn pacte bàyyil ba déwén nga ñëw ndax li daf ñuy delloo na rek génnee woon nañ ko ànd na doole dugg lan lañ doon bind bokk na ca lañu bind ngir gàttal ku jóge ci yow bu ñëwee ci ñun duñ ko delloo nang ñu ko waaye ku jóge ci ñun ñëw ci yow nañ ko delloo waaye ku jóge ci yow ñëw ci ñun buñ duñ ko delloo ah, yonte loolu nag lan umu kii umu salama daal ko ne nangul mu ne ko yaa ko wax soxna mu ne ko nangul yonte bi si ñëpp sahaaba yi génn rimoori naan yonte bi waxu jigéen rek la toog dem na signé pacte fu ñu jëm ku jóge ci ñoom bu ñëwee ñun nañ ko dellu te ku jóge ci ñun bu demee foofu ñoom duñ ko dellu mun a kaay waxal gaañu ñu mooy tàmbalee di ngat de mu ñëw mu ne ko mu ne damaa xam ne yow Muhammad ku xas a ñam sa mbaax xam sa yiw sa ragal yàlla sa tabe sa yiw ku xas a gëm boo ko delloo dafay doon sa ambassadeur mu tasaaral dafa diina xamuñ luñ def waaw te ku nekkoon ci yow ba xam la du lay bàyyi bay dem ci ñëw nee nañu mbaam bu lekkee lem dafay dee waaw <laughs> parce que euh, lem moo dàq ñax dootul bëgg a lekk ñax te kenn mënta am lu suux ba am ci ndem kenn du ñam Seydina Muhammad di ko bàyyi di dem feneen dossier boobu ci la yonante amee chance demante tàmbalee am am ñuy làqatu di tuub nekk Makka di tasaare diina ñu teg ci ñaareet la yàlla soog a àndee fatu Makka isa ja nasrullahi wal fatu wa raayta naasa yàlla xuluna fii diin lay afwaajan kon dossier boobu jigéen moo ko géré woon